asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu bokki Sénégal yépp dellusiwaat rek ndax yëf yi moom boo ne noppiit noppi déggloo xam ne doo mën na ñàkk a wax te man de jàpp naa ne am na foo xam ne néew moom danaa fa àgg jéen ciy wax waaye nag yaakaar naa mënu su fa ñàkk a àgg ndax loola moo di euh, jamonoy campagne lañ nekk sëriñ bi jàpp ak njàmburam ku ne xam na ne sëriñ bi ku ñëw fi moom ku ne wax na la wax joo xam ne soo dul kuy denc sekkere soo ko génnewoon mel na yow rekk la àndal ndax sëriñ Muntaxa no loolu mu ne nit ku ne lam rafetle la fas yéene xam la ca des yoonam nekku ca loolu lay lay dunde ci lépp ma bëggoon nag ginnaaw moom wax nañ ko waxati ko njaboot gépp ñoo yem ci moom amu ci xejj ak seen kenn ku ci ne ña nga jàpp ne ñooy sa mbooloo moo la ci ëpple rikk waay muy dund loolu di ñaan ki nga xam ne moo gën ci réew mi sunu borom teg ko ci bopp réew mi rikk waaye ñi ko bëgg a farale fenn nañ ko bàyyee nañ ko bàyyee nañ bàyyi di ko farale fenn sëriñ Muntaxa faruta kenn moo moo jaboote ñépp ko jaboote ñépp amoo sañ-sañu fara kenn kon ñi nga xam ne ah, jàngoree politique dugg na leen ba ñu mën a génn mën a wax mën a def loo xamante ne mel na ne jaay nañ seen ngor jaay seen njullit nañ bàyyi sëñ bi moom nañ bàyyi sëñ bi am na foofu nag ne war naa duma fa àgg ci wax ndax damaa jàpp ne bu ma fa àggee ci wax a ah, képp koo xamante ne sëñ bi yitteel na la boo xefee danga fan fa ne yël ban ligne ndax ginnaaw sëñ bi nag ñu ngi génn rek nag ci di ko sosal di ko sosal ah man de am na kàddu yoo xam ne moo ma ko wax muy leer naññi muy lu ma mën a waat mu wax ne ñaar ñiir yéem nañ ko ki nga xam ne dafa nekk ci dëkk sëriñ tubaab bi ak fi ko Serigne Touba féete ak li ko Serigne Touba war a jaral mu ne fi ñukk sëriñ tubaa moom. soobu ci politique sëriñ bi de moom wax ne kooku bokk na ci ñu ko jaaxal bokk na ci ñu ko jaaxal te loolu yaakaar naa ba ma koy wax ak léegi yàgg na te toujours mi ngi répété di ko wax mi ngi répété di ko wax di di di ko wax jëmmi ki nga xamante ne dafa ñëw jóge feneen ñëw biir Touba wut si wu fi dara lu dul politique. ngir campagne aw ne dajale leen te mu defee ne Serigne Touba rek moo ko waroon na yëkkati nee na kooku it day ku ko jaaxal la ku ko jaaxal la ndax jàpp ne ku jóg daal ba jëm si ci sëriñ Touba dara du buur sa bët lu dul Sëñ Touba rek moo war a buur sa bët waaye leneen mu wërta buur sa bët waaye jàpp na ki nekk biir Touba it rek moo war a buur bëtam ba dara. du ko war a jaral mu mu di ko fi bàyyi di nekk ci leneen Touba moom damaa bëgg ngeen xam ne euh, ku ko man lu la neex mën nga koo defee ci àll bi àll ba waaye jëmmi Touba moom ku ko ci manoon doo fi politique doo fi doo waxuma laa nag ci dugal sëñ bi du képp koo xam ne yaa ngi fi politique na la wóor ne boo toogee sëñ bi bu ko waxee bu la ko dañ na ci yow dañ na ci yow waaw képp koo xam ne yaa ngi fi campagne si di fi wut si aw nit bu ko sëñ bi wax bu ko waxut na la wóor ne dañ na dañ na ci yow ndax sëñ bi fenn la nekk mooy moom jàpp na la Serigne Touba wari su koo booleeg dara jàpp ko ko mu jàpp ne Serigne Touba wari su koo booleeg dara nag ki nekk biir tubaa bàyyi fi Serigne Touba waññale fi ku soobu politique bi kooku sëñ bi jàpput ne moom dara la. nekk googu mu nekk sëñ Touba ba jàpp ne Serigne Touba kenn wërta jóg wut si Touba di soxla woon dara dara lu dul lii fi Serigne Touba jëmbat muy diine lislaam muy muy muy muy muy borom muy xam boromam muy muy muy muy muy muy muy nu mu mën a jàngale nit ñi bañ sopp Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jàpp na ne koo xamante ne maanaam fi mu toll loolu yëkkati wala leneen la yëkkati jàpp na ne kooku ko waru la kon ki fi toog. di politique mi ngi ci woro ki nga xam ne dafa jóg ñëw di fi politique si mi ngi ci woro wax ji nag day bëgg ëpp day bëgg a ëpp ndax buñ demee ba sëñ bi wax ju mas a wax ñu ñu bëgg a jël sëñ bi kenn dégg ko wax ci politique bi ñu bëgg a jël wax jooju di ko di ko di ko teg nag ci rajo yeeg télé yi ah ñu ngi bëgg a ëpp ñu ngi bëgg a ëpp lu ëpp nag tuuru lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru na xam ne sëriñ bi am na lu ko yitteel lu bokkut ak li leen yitteel yéen ñii àdduna cas ba ngeen jeexal takk desewu leen dara dem leen ak seen àdduna te bàyyi sëriñ tubaa mii te bàyyi sëriñ tubaa mii tëlu ko bàyyi leen sëriñ tubaa talu ko àdduna cas nee na leen cas jeexal ngeen takk dem leen ak seen àdduna ay bay bàyyi leen sëriñ Muntaxa mii ngeen xam xamme waxut waxlu ngeen bëgg rek dajale ay wax yoo xam ne ba mu ko waxee kenn nag xamul kañ la te sëriñ Muntaxa ku mu mën a doon boo toogee da lay sant da lay gërëm ku mu mën a doon boo toogee da lay sant da gërëm waaw ñaata yoon dafi gërëm Ablaye Wade ñaata yoon dafi gërëm eh, ñoom mboolem ñoom ñi fi ñëw kenn ku ci ne maanaam coono ba nga jóge fanga nga tollu baag si Tuubaa képp moom loola lay xool ci yow loolu lay xool ci yow loolu lay sant loolu lay gërëmee kon nag nañ bàyyi nañ bàyyi naa fi risque gi nga xamante ne maanaam fii ñu ngi ko bëgg a dund ci yoonu murit rikk waaye ku àdduna yàq ba nga yàqu ba nga yàqu ba ba politique yàq la ba xamatoo luy sa njariñ rikk waaye soobu ci nag tawee te bàyyi sëriñ bi bàyyi leen sëriñ bi ngeen di foye billahi sëriñ Muntaxa mi ku ku ko ci bàyyi wut a fooyee na la wóor ne na la wóor ne yow bay boo nga fay say bor te xam ne lee nga jeexal bàyyi leen sëriñ Muntaxa mi ngeen di foyee du seen morom Sëriñ Tuubaa ku yëkkati Sëriñ Tuubaa soxla woo ay waajile ay waajile bàyyi leen sëriñ Muntaxa mi ngeen di foyee bàyyi leen sëñ bi ngeen bëgg a jël kenn ku ne di jël audio di ko di jël ay waxam di ko booleeg lu ne ay waajile bàyyi leen sëriñ bi bàyyi leen sëriñ bi billaahi ku ko ci bàyyiwut léegi yow ñu sarxal la mu jeex bàyyi leen sëriñ bi nekkul seen caaxaan yi ngi nekk nekkul seen tappal yi ngeen nekk ah am na si ñoo xamante ne ay bor lañ jël ba fees jëli bor ba fees xamatoo dara état tënk la amoo foo jaar nga ñaar bi ko maanaam xamatoo foo jëm ñu ne la nuus ni ñuy jàppee ni ñuy jàppee bu defin nga bëgg waññari bi ko nag jël sëñ bi di di ko di ko di ko di ko di ko di ko waxal lu ne ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir yow gàkk ya nekk ci yow nga bëgg caa boole sëñ bi sëñ bi bokku ci sëñ bi mos ta soxla woo dara mus la mus la ñaan kenn dara la tax mu def ko day jàngale mooy bëgg a moom boppam bëgg képp koo xamante ne maanaam as gor nga nga jaar fi mu jaar ba mën a moom sa bopp waaye koo xamante ne yaa ngi bëgg àdduna ji wala ngay dox ci àdduna ji wala ngay yutu àdduna ji faw buur ne la taral ku buur ne taral nag duutoo wax mukk loo xamante ne lu la jëme kanam la lu jëme kanam bu rek ngay wax lii rek a fi nekk lii rek a fi nekk wax mënut ta ñàkk de wax mënut a ñàkk sëñ bi moom bu noppee ñun ñii nga xamante ne maanaam euh, euh, daloo sës moom muy suñ kilifa maanaam nu nu bëgguñu dara lu ko gàkkal nooy wax nooy wax bàyyi leen seen caaxaan yita bay sëriñ bi sëriñ bi talu leen talu leen xadduna fëkk na leen dem leen ak seen xadduna ay waay bàyyi leen sëriñ bi billahi